par ñun moo tax moo tax nekk activiste yombul yombul yombul moo tax il faut nga nangoo il faut nga nangoo takk sa biir pour le peuple takk sa biir pour le combat ay principe sénégalais xamul principe sénégalais li mu xam mooy ànd nañ xeex nañ séddoo après nañ pàccoo. ànd nañ xeex est que pàccoo kon pàccoo boobu nga sentir. ci gouvernement bii nii. non non cest exemple laa man gis naa. man li ma gis laa wax dama lay wax ne la maanaam. waaw xam nga laa lay cest à man li ñu may wax laa lay wax. fu ma dugg non yow danga xeex danga war a dem nekk député da nga war a. arrêté arrêté ñoom pour ñoom nekk député. non xeex bi jeex na da nga war a man xeex moo fi jeex pour ñoom nekk député pour fayee ko la am ay papa diplomate nekk député du loolu nekk député pour jaamu yàlla la pour xeexal sa réew la ñun député mun nañ ko nekk gratos moom la ñu mus a nekk sans benn privilège ñu nekk ko mooy di représenter le peuple sénégalais il faut ñun loolu lañ jàppoon ni bu régime bi bu ñëwee loolu lay indaalee ay nit yoo xamante ni ñoom dañuy xam ni au fait. nekkuñu député pour Macky Sall nekkuñu député pour Diomaye nekkuñu député pour kenn dañu nekk député pour le peuple nekk des députés au sens du mot représenter peuple sénégalais bi foofu ca pencum ndaw réew mi tu vois ce que je donc loolu loolu moo tax ma ne ñun dañ doon xeex pour rupture totale dañ doon xeex pour changement dañ doon xeex pour ay démarches yoo xamante ne dañu xam ne justice bi day indépendante. rupture totale salaamaaleykum salaam rupture am na. wala ci quelque mois ngeen gis ni ñii kat ñu ngi dox ci wàllum rupture buñ nekkoon ci loolu waaw buñ nekkoon ci loolu rek duñ arrêté kenn tant que defuñu ay réforme waxatuma nag xam nga ay délit d'opinion ñu lan lañ fa dajul ci délit d'opinion mais man li ma gis ne ay règlement de compte la te man foog naa ne Sénégal dépassé na ay règlement de compte politique règlement de compte règlement de compte politique la kay règlement de compte politique la te ñun loolu man foog naa ne dépassé nañ ko vraiment xam lu tax Sénégal dañoo sonn ajara aja Sénégal Sénégal quatre ans wala cinq ans Sénégal topp nañu indil Ousmane Sonko am Macky Sall am Macky Sall jàppal Adji Sarr am Ndiaye joxal Diop jàppal diw procureur Maham Diallo deuxième cabinet premier cabinet Sébi Xotaan Rëbës. xoolal nit ñi di dee c'est-à-dire kenn nelawul Sénégalais yi dañ leen mais gis nga bi ga bi ñu xeexee ba Macky Sall dem bàyyi bu ñu voté ba ba mu dem nit ñi dañu soufflé ba ñu ne alxam cest à que dañu sonnoon quoi mais. noppaluwuñu six mois sax amul réforme amul dara ñu bëgg nekkaat ci jàpp ay nit ay délit d'opinion jàpp nañ Bougane arrêté nañ diw jàpp woo nañ Cheikh Yérim Seck bëgg retourné waat ci at nga xam ne lii au fait lii c'est des règlements de compte politique yoo xam ne loolu amul benn njëriñ Sénégal. booy jàpp ma da nga war a jàpp ñi rey mais fenn quand même. non mais woon nañ leen déglu leen delloo leen. mais def nañ ko quand même woo bi au fait moo warul woon sax ci ay délit d'opinion. Euh, Sarr dafa am loo xam ne warul ñu fi nekk tey parce que fi ñu jaar la. pour liberté billaahi fi ñu la ñoom fi ñu jaar la. ñoom ils ont été arrêtés juste par ay ay tweet ay post Facebook la du Sénégal parce que dafa posté Facebook mu dund cellule xam dund fanaan ak ay nit gis ñoo xam dañ leen tooñ tëj leen moom xam na li nekk ci kaso bi ñoom dund nañu injustice boobu noonu mais est-ce que ñooñu war nañ taxawaat di utiliser justice boobu noonu pour arrêter ay adversaires politiques. ñoom bu ñu déggee automatiquement ñu ne woo nañ diw rek ñoom dañoo war a jug taxaw interpeller r réforme amagul dara amul. mais mais réforme euh, interpellé googu noonu lañ ci bañ xëy na par euh, bañ a dugal seen loxo ci wàllum justice bi justice mooy doxal nañu bàyyi justice. bu dee liggéey doxal ko justice lan lay lan lay doxal ay euh, weddi weddi premier ministre contredire ay chiffres yu mu joxee ne loolu loolu déli la ci loolu la justice bi di doxal nañuy waxtaan rek. Kader Kader Kader bu le chroniqueur là de Sen TV lan la wax dafa ni booy bi ñuy dem. si gaal gi. mais loolu jotewul dara ak premier ministre bi quand même. non tax la la la indexé. Euh, non dégg nga dama ne. waaw ah. cest boobu noonu. mais liberté d'expression bay indexé wala ngay taxé nit de corruption surtout ay takk der de corruption. déggul mu la. waaw Kader li mu wax dafa simple. dafa ni booy est-ce que déggu baax booy yi dañ ko wax ni ko dañ ko envoyé audio wax ko ni ko ñoom bi ñu dem ay policiers ñoo leen jàppale pour ñu dem mais gars foofu lan mooy problème bi ñun ñu toog si koñ di gis. auto police ñëw taxaw dugg fekk jaa jaakatu yamba bi jàpp ko jàpp drogue bi yóbbu ko tuuti ñu gisaat jaakatu yamba bi ñëwaat ci ah bon. loolu yàgg na Sénégal de kan moo ñemee wax Sénégal amul corruption kan moo ko ñemee wax. ci ay takk der. mais fépp réew mi corruption yàq na ko ak Sonko dañu doon xeex wax naa ko laa fa passé maa ngi koy wax maa ngi ciy insisté waat commissaire Keita mag la ñun faluñu gouvernement pour muy fayantoo faluñu gouvernement pour muy pour muy. pour muy jàpp ay haine di fayantoo nekk ci ay dañ leen fal pour nit ñi dëkk bi dafa metti Sénégalais yi dañu nekkoon fayantoo la non mais fayantoo commissaire Keita ñëpp ko mere man mii di wax yow commissaire Keita ma dara man commissaire Keita defee ñëpp gis nañ ko waaye di bi ak ni mu doon acharné woo mais est-ce que ñun yow boo demee ba toog ba gouverner li fi xew yow est-ce que waroo jéggale est-ce que jël utiliser pouvoir bi dem di xeex ay yoo xam ni ils sont impuissants commissaire Keita lan la mën a apporter lan la mën a yàqal état du Sénégal koo xam ne bi ngay nekk opposition mënu si yow dara nga nekk pouvoir lu lu mën si yow. d'accord alors est-ce que tu vois ce que je donc man dama bëgg ñu wax si commissaire Keita bu baax a baax commissaire Keita na ko na ko nañ bàyyi jàmbur mu dellu ci njabootam mag la nañ bàyyi jàmbur mu dellu si njabootam. lii xaaruñu ko woon quoi ñun xaaruñu woon fal gouvernement boo xamante ne dafi nekk di xoolal di tooñ ay nit di leen jàpp. sàcc yaa ngi fi reykatu nit yaa ngi fi ñu ngi nii le plus grand criminel de l'histoire du Sénégal mu tête de lañ ko def. mu nax leen comme xale. kan la Macky Sall. Ah, xam nga loolu. Macky Sall nga wax <laughs> moom mooy ci moom mooy grand léegi moom mi ñu def ci est-ce que tey jii bu ñëw ñëwoon Sénégal euh, voilà dara du ko ci du ko ko ñu mën a fekk. Euh, kii léegi bu ko dara si fekk. <laughs> non damay laajte koo xamante ni réew am na lu mu def ci réew mi. yaram xam nga xam nga Macky Sall. Macky Sall man li ma jàng si si si si. si scène bi ni mu demee non non au fait ni mu demee. ni mu nax gi mu nax Ousmane Sonko. loolu dafa ma dafa ma metti. nax ko ci ban côté. ñun dañoo dund Macky Sall dafa da rey di tëj am ay géwélam yu naan ko del rey di tëj muy rey di tëj di def lu ko neex Macky Sall amul lu mu dund loolu Sénégalais yi yow ñun dañ ne Ousmane Sonko xool naxante la Macky Sall jël pouvoir bi nga arrêté Macky Sall Ousmane Sonko xaw lan la benn compromis la def ak Macky Sall bàyyi ko mu dem. te Ousmane Sonko moo ko def. Macky Sall daf ko nax comme xale lan mais ban tamit il faut arrêter avec ça aussi gars yi tamit. <laughs> c' est le premier ministre c' est ñu nekk ci pouvoir bi voilà. léegi ok ñoom ñu nekk ci pouvoir bi alors. Mm. mais man li ma metti mooy naka lañ mën def ba nit criminel bu mel nii ñëw di nekk tête de liste quoi te léegi attends léegi lan lañ koy def yow on t' tout le pouvoir yéen on vous tout le pouvoir ñun gis nañ ki nga xam ne kii baaxul ñu xam ne mu nekk fii di ñu fitnaal. nekk fi di gouverner nu mu ko neexee rey suñuy doom tëj suñuy frère toroxal suñuy jabar sàcc suñu alal tey boo toppee tey jaay yi ñu enrichissement illicite yi ñuy topp nii yëpp ñu di ko topp ay détournement bien public yi ñuy topp nii yëpp Cour des comptes yi boo ci topp ci Macky Sall lay jeexee. Hmm. ci Macky Sall loolu amul werante yow loolu nit ku mel noonu yow man nu mu naxee Ousmane Sonko comme xale boo am 12 ans bàyyi ko fi Macky Sall dafa mu xamul lan la je sais pas quoi mu bi dem. pour ñoom bu encore di nekkaat ñu koy investir tête de loolu rek war na tax Ousmane Sonko xam ni il est immature. kan moo immature. Ousmane Sonko. dafa immature. waaw. ci Macky Sall da ko nax comme xale déggoo lu la xanaa ajara ça fait mal au cœur xëy na xoolal ñu ñëpp xoolal ñu ñëpp bëgg Sénégal changé mais immaturité weesuwul muy accepté di bàyyi Macky Sall mu dem noonu bu ñëwaat nekk tête de nekk tête de liste mais mais est-ce que nga loolu ni ba tey day ñëwaat de moom Macky Sall. wax mais nekkul tête de peut peut-être même ils disent bu ñëwee fii nii mën nañ koo mën nañ ko téye. kañ lañ lu ñu doon xaar lu tax ñu bàyyi mu ñëw fii soo koy téye léegi lan moo doxal ñu bàyyi ko mu dem bu ñu koy téye ci yan preuve lañ koy téye fan lañ moo si am est ce que tegoon nañ ko ci ko da ko résidence surveillée dem lijjanti ay koy téye ci yan lan lañ koy téye Macky fu ñu lañ koy téye parce que Ousmane Sonko moo taxaw ñëpp di ko seetaan mu ne Macky Sall nekkatul suñu adversaire loolu ci campagne kii bi la ko wax 2024 bi élection présidentielle yi déggoo loolu déggoo mu koy wax toog nañ benn moment boo xam ne waxu tuul waxi Macky Sall sax c'est-à-dire loolu laa lay wax ko nu mu ñun naxee nii nu mu leen naxee nii dafa metti on a combattu pour pour ce gars nga xam ni kii li mu fi def si mal dafa bari alors comme ça mu dem noonu après ñu ne ñu léegi kenn du ko wax quoi kenn du ko wax ku ko wax tey nga dee.